yéenekaay yi dañ ci ànd ak Serigne Saliou Seck dal leen ak jàmm xultu yi waa f ak jàmbati waa yeewi askan wi daanaka moo nekk ci mbooleem yéen kaay yi nu xëyandool l'observateur ca la bokk journal Futur Média bi ne waa F24 li nu bëgg moo di dakaar dee wet dara du dox Sénégal gépp ànd ni tekk lépp nag ñu ne ngir ñaawlu li nguur gi fi nekk dëkkeek ñoom journal L'Info ne waa F24 kay dogu nan te bii yoon nee nañu dañuy dem ba jeex nit yi nu dëkkee jàpp di leen yóbbu kaso ak ñi nu jot jàpp ba yóbbu leen kaso ñoom ñëpp la bëgg ñu bàyyi leen féexal leen Sud tax ba ñu tekk plan d'action bu am doole ngir mën a jaamaarloo ko nguur gi fi nekk Vox Populi ne F24 tàbbi nañ ci combat ngir ñu bàyyi ñu nu jàpp ne politique képp a tax ñu yóbbu leen kaso te ñooñee Ousmane Sonko lañu ca jiital moom Ousmane sonk moo ngi ci diggante dund ak dee Walf Quotidien moo ko bind ci xëtam journal bi ne moo tax ba waa yeewi askan wi di artu ci l'observateur Aïda Mbodj ne démb la àndoon ak Habib Sy dem seeti Ousmane Sonko waaye Sonko mënu gis mënatu ko xamatul lu bari ñoom sax yeex na leen a xàmmee lii tax muy sàkk ñu bàyyi ko mu ñibbi ci njabootam ngir ñu mën koo taxaw coow Les Échos ne waaye yeewi daal xibaar yi nu joxe ci Ousmane Sonko neexulu Habib Sy ne bakkan yàlla moo ko yore waaye nag lu nekk mën na caa am ay dumbooñ ne Ousmane Sonko nekkoon lool jàmbaar bile yoon kenn xàmmeetu ko lii tax muy sàkk ñu bàyyi ko mu ñibbi këram laata bay di woy mbuus sursu aan mbirum Ousmane Sonko daal ay dëmboj jooy na Habib Sy jaaxle jigéen ñi fare ci benn Bokk Yaakaar te nekkee ca Touba ci L'Observateur ni Aïda Mbodj moom tëj la war a def daba ma ki ma leen jiite ne muy Aïda Mbodj di waa yeewi askan wi bu ñu bëggee morom nañ ko uti te bàyyi fi sëñ Muntaxa ak dëkk bile di Touba ci Vox Populi premier ministre ci mbirum Ousmane Sonko mu fay xamle ne yoon dina ci dem ba jeex dina ci def liggéeyam ca na mu waree moom Amadou Ba ñu fekkaat ko ci journal L'As bi lee yoon mu fay tontu universitaires yi jàppal tànk Ousmane Sonko moom Amadou Ba dafa daaneel rekk Doudou Ka jël xëy fàngaaju xët u njëkku Direct News Doudou Ka ne ñii di yuuxu ak dinaan nañu bàyyi Ousmane Sonko fan la ñu nekkoon ci bi ñuy attaqué république bi mu yokku ca ne dinaan nañu bàyyi Ousmane Sonko ak nanu mooy tekki ne nanu muy doxe ci réew mi Doudou Ka noppeek Ousmane Sonko rek dal bokkal APR ak Benno Bokk Yaakaar ne nañu ànd ak dal te bàyyi njiitu réew mi di président Macky Sall mu tànn ki mu jàpp ne moo baax ci coalition bi ngir mu nekk seen mbër ci élection présidentielle yu atum 2024 Doudou li ku nekk di tëbaka dal di naan candidat lay doon loolee rafetul te itam delloowuñu naar bi xoromam mu ne moom ci ngor la masa ànd ak président Macky Sall te loolee la jàpp ne bés bu ñu ko ci dégloo dina leen tegal ki nga xam a grève xiifal bi mu nekkee bés bi la journée ak njabootam daal ñi ngi ñaan njekk ngir ñu bàyyi ko moom Ousmane Sonko journal bi jaare faa defub taxaw seetlu ci jabari way politique yi seen doole ci seeni borom kër ndax ñaari soxnaay Ousmane Sonko soxnaas Macky Sall di Marème fay Sall sax moom la ñuy ñaan njekk moom Marème fay Sall fondation bi mu taxawaloon tribune yéen kaay nee na tas nañu ko Aïcha Fall bu l'observateur jël xalimaam di càmbar la ko waral war saxaar gi màggali ren lu mën a nekk lay doon Mansour Faye mi ko wax ci l'observateur dugg na ci saxaar gi ba dem ca Touba joxe itam feu vert màggal googee vox populi moom jël na yoon wi tey jii ci sëriñ Mor Faasa Baaxum la xëy di wax journal bi ne sëriñ Mor Baaxum jàmbaari sëriñ Tuubaa la woon borom léppay baax ba noppeet bay waaram ci yoonu murid yoonu murid ki koy jiite jamono ji ci sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke delsiwaan na ci yàqate yi ñu defoon ci réseau ONAS bi ca Tuubaa xalif bi ne jigéen ya ko def ñàkk a xam képp ci dugal beneen xalif moo nekk ci xët wu njëkku l'Observateur ci bureau conseil notable lébu bu Cap Vert Dakar fi la coupe du Sénégal di amee suba lay doon stade yéenekaay ne jaraaf ak stade de Mbour ñoo ko nar a football tax yéenekaay bi samp laaj ne kan ci ñaari équipe yi moo nar a gën a dugg ci histoire Maman Koundoul mi aw turam duggee neneen ci histoire l'observateur xëy na dinu wax fu ay mbiram mujje journal bi ne Maman Koundoul mooy ndaw si ni woon dafa ëmb dafa réer dañ koo kidnappé ba noppeet yóbbu doomam te loole lépp dara du ca dëgg journal bi ne moom ak ñamu àndaloon dil ba tribunal àtte na leen ba tëj leen juróom weeri kaso yu ni tëdd benn weer ba DSL ak seen marque bii di